waxtaan nañu ñun donc euh, ak kuréel bu yaatu boo xam ne ak ñu ñu convoqué yëpp macha allah je crois que presque ñu ci gën a bëri ñëw nañu donc euh, waxtaan nañu lu ñu mën a tënk mooy donc tu lu gàtt daal mooy dafa mel ni ci biir waxtaan yi euh, nit ñi ku ci nekk presque bu jëlee parole donc rafetlu na donc réunion bi du CDD. donc te ñu jox ci wàll bu am solo waa croix ci tubaab am na ci ñu ciy wax sax dañ leen di félicité di leen encouragé ci initiative bu ngeen jël nii di initiative bu am solo si euh, seen présentation bi wane nañu ne bu ngeen demee ba tànn Mbàkke am na ci ñetti critères yoo xam ne yéen yoon loolu ngeen jiital ay ponk bu ci jiitoo muy taxawaayu département Mbàkke ci Sénégal position géographique donc ci position géographique boobu ñu tudd ci donc bu mel ni Touba proximité bi ñaareel bi mooy donc accident yi donc dafa mel ni sapeur pompier nu mu ko wone donc xayma yi ñu ci am donc xaw na tiital nit ñi tuuti ñetteel bi di donc maanaam comité buy buy liggéey fii comité bu Croix-Rouge buy liggéey fii ci département Mbacké vraiment comité buy liggéey liggéey bu am solo la dina amul lenn loo xam ne ci affaire sociale fii te ñoom duñ ci dugal seen loxo surtout affaire màggal yi santé wax na leen ko seen partenaire la ñu sapeur pompier noonu ak ñeneen man sama réunion yi toujours ñoom bu ñu ñëwee da ngay gis ni bu ñu jëlee parole noonu la dañuy compléter donc de façon harmonieuse di jouer seen rôle d'auxiliaire donc de pouvoirs publics donc ñu di encourager di leen sant monsieur le président donc ak aussi membre délégation yu ñëw fii dañu bëgg ngeen jottali ko aussi ci tour waa département de Mbacké donc suñu kontaante li ñu bëgg a def ñun parce que ñoo ko bokk léegi ñun ñëpp donc fii ci Mbacké mu ngi ñëw ci waxtuwaam ndax comme ni ñu ko waxee dafa fekk euh, ñu nekk ci programme donc di sensé permis yi plaque d'immatriculation ak yeneen te xam nga yooyu yëpp dafa am lu muy àndal accident yi bëri na loolu moo tax donc programme bi ngeen bëgg a fii ah ñun de soxla nañ ko lool ñun autorité administrative yi waaye tam autorité territoriale yi yoo xam ne ñoom population yi ñoom la ñu wooteel ñoom ñooy représenter intéret population yi ak service technique yi ak suñu partenaires yi fi nekk yëpp donc ba ci transporteurs yi donc ci wàll yëpp nag maanaam yu yor kaar yi yor taxi yi yor jakarta yi charrette yi ak yëpp ñoom ñëpp donc ci seen tour yëpp la ñuy wax ah euh, am na nag ay ndënkaane yu fi yu fi yu fi juddoo mooy am na ku ko tuddee encrage communautaire maay lu ñuy def nii maanaam vraiment ñu boole ko ñëpp yëfu euh, société bi la yëfu communauté bi la kon ñun ñëpp ñu ànd ci donc liggéey ci donc loolu moo tax ku nekk joxe na engagement tey ne incha allah ku nekk lu mu mën dina ko def pour pour bés bi rafet incha allah ah, ñu leen di dënk tam. agenda bii ñu discuter ba nga xam ne léegi dënk nañ ko bu ngeen demee lu mu gën a gaaw ngeen multiplier ko ba nga xam ne ñii fi teew yépp ku ci nekk jot ak synthèse bi pour que aussi parce que ñoom tam dañuy dem dañuy yor ay kuréel ñeneen ñi dañuy dem rendre compte ñooñu kii bi nii. benn exemple fii mooy donc monsieur le maire il faut que moom mu touché yeneen maire yi donc il mu am am na ay documents ñu fi tuddoon muy ñett yooyu su fekkee bëggee ngeen def ko lu mu gën a gaawee. donc affaire bi daal affaire bi ñëpp la na ci ñëpp jàpp. ñu ngi wax donc suñu engagement ñun ñëpp euh, di aussi xaar lu ngeen tuddee évaluation évaluation bi tuddee ngeen ko fii évaluation ak diffusion. beneen bu muy bu ñuy mujjee xëy na mooy euh, am na lu ñu fi wax lii ci accident de la route la premier geste. tudd ngeen fi sax ngeen ne ñeenti affaire ngeen ciy def mooy alerte dégagement d'urgence. donc affaire hémorragie garrotage ak yooyu ak position d'attente waaye nit ñi war nañ leen ne affaire bi dañ koo soxla te dafa war a gën a yaatu donc am na ci ñoo xam ne tey ñëw nañu wuyu donc wuyu si ñoo xam ne ci affaire électricité la ñuy liggéey ñeneen nii dañuy togg dañuy et cetera yooyu yëpp dafa am ay danger donc te dafa may fàttali man euh, bu ñu gënee kii nii amoon na ay jamono fii boo demee vingt ans vingt cinq ans derrière chaque fois télévision dañu daan wane benn émission boo xam ne tele Cologne sur quelques minutes la rek mais toujours les gestes qui sauvent là donc et cetera euh, donc lu am solo la donc ñu leen di gërëm di leen sant ci turu ñëpp vraiment di remercier donc euh, autorité administrative bi ci wuyu si bi ah donc euh, nawet bi xam naa jafe na di autorités territoriales yi sur le président du conseil départemental le secrétaire général messieurs les maires yéen ñëpp donc ak kilifa yi fi teew yëpp donc euh, rawatina force de défense et de sécurité chef de service yi donc ak suñu partenaires yoo xam ne ñu ñoo bokk tali bi ak yëpp donc ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen jox rendez bu donc incha allah di 7 au 9 xam ne ñëpp dinañ ci jàpp incha allah.